ci jamono jooje nag awkaay layool kii di Barthélemy Dias moom ñu gis ne rek euh, ci procès bi dafa am lu bëri loo xam ne rek euh, leeru ci batonier de l'ordre des avocats moom dañu mer li ko waral nag ñu gis ne maxaama sax wala pouvoir yu ñu jagleel ki nga xam ne mooy procureur de la république moom dafa ëpp ba tax na rek euh, mbay gi ak i ñoñam di sàkku ci kilifa yi ñu xoolaat li ñu mel ci jamono joojee nag waa union des magistrats du Sénégal ñoom tamit ñuy sàkku rek justice boo xamante ne rek defa moom boppam ay fan gannaaw bi nga xamante ne rek le kii di Cheikh Diop faatoo gannaaw bu mu taalee boppam nag sénégalais boobu nag jotoon na tase ki nga xamante ne journaliste la Pape Ndiaye foofee ca Walfadjri mu jotoon ko dénk ay seede ci loolu nag dinañ ci ñëw ci biir xibaar ci jamono jooja nag avocat yi laloo ki nga xam ne mooy Cheikh Diop. di sàkku rek famille bi ñu amal leen ndàmpaay ndax gis nañ ne rek dafa bëri lépp loo xamante ne rek jaaro ci yoon fédération sénégalaise association des consommateurs di kuréel boo xam ne rek moo dajale ñëpp ñuy xeexal askan wi ñoom nag ñu ngi sàkku rek ci kilifa yi ñu gën a leeral li nga xam ne mooy contrat bi dox diggante nguuru Sénégal ak waa Suez bu ko defee rek ñu àddu ci lépp lu euh, jëm ci wàllu prix yi ak li nga xamante ne rek mooy coupure ndox ñu leeral askan wi ndax loolee du ci amati mbokk yi looloy ponk yi boo leen taxee loo tuuti ñu faram mbokk yi asalaamaaleykum ñu door ak mbiru Barthélémy Dias ñu ko doon àttewaat foofee tey tribunal bu Ndakaaru tey ci suba ci loole nag aw kaay yi layool maire Mermoz Sacré-Cœur gis na rek procès bi moom dafa bëri lu bëri loo xamante ne leeru ci ci jamono jooju nag procureur moom muy sàkku rek ñu wéyal li nga xamante ne mooy peine bi ñu tegoon ci kawam maanaam juróom benn weeru kaso dix après ra teewoon fa ñu teewlu micro ki nga xam ne moom mooy la Barthélémy Dias di maître Amadou Ali Kane su dee saaga am na wala xaste am na kii nettali saaga wala kii nekke nettali xaste moom moom moo saaga moom moo xaste soo ko toppalee mënoo topp ka nga xamante ne moo ko def parce que ki ko def su ko kenn jàllalewul kenn du ko dégg loolu moo tax ñu ne yoon li mu wax dafa leer Barthélemy complice la te complice bala nga koy topp nga topp auteur principal bi ba culpabilité autorité principale bi taxaw nga door a mën a topp complice ki nga xamante ne moo ko jàppale ba mu mën a def délit bi mu def. léegi procureur nee na ñu confirmer décision bi bu ñu ko nee na la yéen lan ngeen ciy gën. ñun dañu jàpp ne que procureur li mu laaj cour d'appel waru ko ci topp parce que yoon mayewul ñu topp Barthélemy comme auteur principal à partir du moment où li mu wax dafa jaar ci organe de presse moyen de diffusion publique moom complice la war a doon moyen de diffusion publique bi moom moo war a nekk auteur principal te auteur principal bi tant que prouvé wuñu firndeeluñu coupable na am na responsabilité pénal ci li mu def waruñu ko moom complice topp ko loolu moo tax ñu ne ci point boobu ñu ngi laaj yoon pour mu teggi tuuma yi ñu ko teg raxas ko ba mu set wecc bâtonnier ordre des avocats moom dañu mer li ko waral rek ñu gis ne gëdd wala sax pouvoir yi ñu jagleel kii di procureur de la république ba tax ñuy sàkku ci kilifa yi ñu xoolaat li ni mel ci loolu nag ñu ngi sàkku rek ñu amal li nga xamante ne euh, beneen euh, li ñuy duppee juge des libertés bu ko defee rek ñu mën a rectifier jafe-jafe yooyu ñu ne mekk ñu teewlu ci loolu maître mbay Guèye ci micro Chérif Dia. gendarmerie boo bëgg bu nekk ci sa ressort ne leen dem leen jëli diw diw moomu bu ñëwee. tànk neewu leen bàyyi leen ko mu dem fa lay des bu fa desee délai à vue nga ni defeere leen ma ko buñ la ko defeeree am nga droit yóbbu ko rëbës loolu dafa ëpp il est temps ñuy ut juge boo xamante ni nii en matière de flagrant délit bu procureur décider poursuivre décider wul classer dossier bi mais pour poursuivre juge boobu déglu procureur déglu euh, ki ñuy topp ba pare décider na ndax pour juger ko jar na ñu yóbbu ko rëbës walla comme dëkk na fu nit ñi xam du daw du dem fenn man nañ ko bàyyi mu dem këram pour bisu àtte ba ñu àtte ko parce que nit li gën a garaaw mooy nit dem kaso un mois deux mois devant le juge ñu ni ko àtte nañ la quinze jours avec sursis walla une amende de cent mille francs mais deux mois yi nga def fële fan lañ ko teg. ci mbiru yoon ak union de magistrats du Sénégal ñoom nag li ñuy sàkku rek mooy justice bi gën moom boppam ci loole mën a antu nag foofu ñu jëfee li nga xam ne mooy la ñuy moom gannaaw comité de consertation bi. bu ko defee rek yenn jafe-jafe yi ci faral di nemmeeku ñu mën ko moytandiku Kumba Amaat loo teewee seen li nga xamante ne mooy conférence de presse ànd ci ak jaafara justice su Sénégal di seet nu mu moomee boppam loolee nag di bëgg-bëgg bu amagul li waral lu ni mel di manque de volonté politique bi ci kilifa yi. justice Sénégal dafa feebar dafa feebar euh, ci kaw nag xëy na système am xëy na aussi. Euh, ay legs traditionnel wala historique bu ñu am mais xëy na aussi acteurs yi nga xam ne ñoo ko sekk parce que du magistrat yi rek justice dafa yaatu même société bi ci lañ bokk. bu ñu xaaree ba. élection yi passé nga xam ne moo gën a soxal Sénégal élection yi mooy gën a am importance pour suñu réew bu ñu xaaree ba booba ñu koy soog a jëmal defe naa ñu ci am regret boo xam ne euh, politique yi nañ ci am responsabilité mais société civile bi aussi nañ ci am responsabilité. kuréel gi tënk magistrat yi ci Sénégal ñu lu yéexaay ñu seetlu ci mbir yi. loolu yëpp ay xalaat yoo xam ne defoon nañ ko ba teg ko. comme texte yi boo seetee amoon nañu ay textes yoo xam ne prévoir nañ ko léegi li si des mooy mise en œuvre kon kooku tamit dañuy ñaax autorités yi vraiment ñu def ko une question centrale dëgg la nous dans un pays sous-développé où il y a beaucoup d'urgence mais urgence lu muy bëri bëri tamit war nañ jël cas ñu def ko urgence. gannaaw lànk bi ñu seetlu ci kilifa yi ñi bëgg mbir yi soppeeku xàddiwuñu benn yoon loolee waraloon ndaje bi nga xam ñu wax ci mbiru Cheikh Tidiane Diop di sénégalais boobu taaloon boppam fan ñu génn ba mu ñàkk ci bakkanam télévision Futur Média nag tase ki nga xam ne chroniqueur de justice la fële ca Walfadjri di Pape Ndiaye taskatu xibaar bi ñëwaat ci seede yi nga xam ne rek jotoon na ko yëkkati ba sax laata muy wuy ji borom Chérif Dia tase na moom ci tënk. moom mi di Pape Ndiaye la Cheikh Diop mujj wax ak laata muy xaru. moom sunu naataango bu Walfadjri ñoom ñaar seen mujj a gisee mooy alar àllarba bi weesu fanweeri fan ak benn ci weeru octobre maanaam ñaari fan laata muy taal boppam. Cheikh Tidiane Diop mag moom ñi nga xamante ci jamonoy mutinerie Rebeuss muy septembre 2016. semaine bii ñu génn yaa su ma juumul euh, semaine bi nga xamante ne dernière semaine du mois d' octobre. mu daal di may woo téléphone ni ma ñibbisi naa Sénégal mais sama problème ba léegi saafarawul ma ne ko ah bon lan moo xew mu ne ma euh, ndàmpaay bi ma état du Sénégal war jox ba léegi euh, joxaguñ ma ko. mu ne ma nag léegi dama bëggoon ñu toog waxtaan ñu xool lan lañ ci mën a def ma ne ko amul benn problème mën nga ñëw sama bureau. ginnaaw bi mu nettalee li ko métti ak naqaram suñ naataango bu Walfadjri ci la Cheikh Diop am xalaatu xaru su naataango bi jéem na ko naxtaan ba mu teg ko ci suuf. mu ne ma ñaari at a ngi nii may daw ci ginnaaw nguuru Sénégal ngir ñu jox ma sama ndàmpaay li ma dal état du Sénégal moom ma ko teg li nekkoon sama xel nag mooy taal sama bopp ba ma ko waxee dama jug toogaat li ko loolu c'est hors de question. bu fekkente ni da nga ñëw fii pour ma jàppale la ci loolu ma ne ko mu ne ko loolu mënuma la ci jàppale. te li ma wax ak moom enregistrement j'ai pris toutes les dispositions nécessaires enregistrement yi mi ngi fi bi ma doon waxtaan moom mi ngi fi ma deñ loolu yëpp mën nañ ko vérifier lan nga ma ne ko bu fekkente ni wóolu nga ma ba ñëw tax ma ñëw fii da déglu sama conseil lii nga yëkkati nii nga bàyyi ko teg ko ci suuf ñaari fan ginnaaw loolu maanaam àjjuma ci ngoon Cheikh Diop jël dogal taal boppam. ci jeudi bi mu xëy woowaat ma ne ma ah grand pape man day la ma la diggoon de yaakaar naa ne du ma ko mënati def. ma ne ko loolu moom mënta nekk benn man duma la ci jàppale deuxièmement avisé naa police pour que ñu la surveiller vingt quatre sur vingt quatre loolu boo ko naree def leneen mën na la ci fekk mën nañ la ci jàpp yóbbu la ci kaso bi bu yeboo nga bañ a exécuté def loolu nga xam ne yaa ngi koy mu ne ma d'accord d'accord d'accord euh, bul ma kaso laa jógee bul ma fi indi pro kii affaire yoo xam bul ma boole wala ñu may yóbbuwaat ma ne ko ci kaw kon bàyyil li ngay def parce que wax na signalé naa leen ko police ñu ngi lay surveiller guddi ak bëccëg bés boo jógee ni da nga koy def dinañ la jàpp delloowaat la ci kaso bi mu daal di bàyyi ñu xëy àjjuma ci ngoon gi noonu bi ma jullee jullee jumaa ba pare ci laa dégg jot information bi wanee ne euh, dafa taal boppam. mbiram Cheikh Diop nag wéy di métti askan wi li muy indiwaat rek mooy yéex gi justicier ak impunité bi nga xamante ni yenn ci ay acteurs am nañ ko def dara te dara du leen ci fekk. Chérif Dia dañuy desandik Papa Ndiaye di journaliste foofee ca Walfadjri moom nag gannaaw bi mu tasee ki nga xam ne rek mooy Cheikh daan Diop mu xamal rek ne avocaam jotoon na dugal recours waa agence judiciaire de l'État nag ñu ngi woon ci taxawaay bi di xaarandi rek li nga xam ne moo naroon bàyyi ko ci boobule kayit laata ñuy mën a xam euh, ni ñuy doxalee ci teewlu ko rek ci micro Chérif Dia. après vérification yi ma def moom permettre ma xamal ni agence judiciaire moom li mu doon xaar mooy. mu am beneen dogal boo xam ne tribunal da ko jox parce que en réalité am na jugement bu génn te boobu maa ngi bokk na ci dossier yi nga xam ne yor naa ko jugement bu génn boo xam ne Cheikh Tidiane da doon laaj ndàmpaay première fois bi ñu débouté ko avocat am def appel def recours léegi recours boobu nag moo génnagul woon moom la agent judiciaire de l'État doon xaar pour mën a xool naka lay def ndax da koy jox ndàmpaay waaw wala déet. ma ne ko léegi yow toogal nga xaar loolu justice temps justice muy doxee bokkul ak leneen domaine yi ni ñuy doxee parce que euh, yéexaay yeeg yooyu noonu dafi dafa loolu yëpp dafa am. ñu wax euh, ci mbiru ci Tidiane job avocat bi nga xamante ne rek mooy layool euh, ki nga xam ne mooy famille bi nag ñu ngi sàkku rek ab ndàmpaay ndax gis nañ ne dafa bëri ci mbir moomu loo xamante ne rek jaarul yoon bay sàkku rek ñu ndàmp leen ci li nga xamante ne mooy métit bi dal seen kaw ñu teewlu euh, maître Assane Dioma Ndiaye ci micro Kumba Amar Lo Cheikh Diop biñ ko téye ci maison d'arrêt et de Rebeuss bi muy yëgee métit ci loxo Euh, piqûre bi ñu ko piqûre ñu ngi ko ko def le 28 août bi ñu ko piqûree le 28 daanaka début septembre rek constaté na loxoom ne benn gangrène loxoom mu ngi néew yi di am problème. état bi sujet de droit la bu tooñee dafa war a réparer li ñuy wax redevabilité sagam citoyen yi ñoom ñooy redevable en tout état parce que état bu soumettre wul ci droit loolu dañuy dem ci dictature dañuy dem ci li fi amoon bu njëkk rek maanaam monarchie. léegi nag loolu moo tax jàpp naa ne mu def act bi pour wane ne dañ ma tooñ que lii may def xëy na dina métti ci man métti ci sama njaboot mais mun na doon ngënal pour une société. kuréel bi ëmb association yi xeexal consommateurs yi fii ci Sénégal nag ñu sekku ci kilifa yi rek ñu indi lu gën a leer ci li nga xamante ne. mooy euh, contrat bi dox digganteem ak waa Suez ñu nar doxal li nga xam ne mooy séddaleem ndox mi fii ci Sénégal rawatina ci euh, dëkku teeru yi loolu nag ñuy sàkku rek ñu addu jëmale ci lu dem ci prix ak li nga xamante ne rek mooy coupure yi ñu daan nemmeeku loolu yëpp doon loo xamante ne rek dina arranger askanu Sénégal ñu teewlu euh, reportage bi ci Maymouna Ndiaye def ànd ci ak Mohamed Saw Dieng. li ñu tabbee kër gi di Suez ngir mu amal. yorin bi ci wàllu ndox mi fii ci réew mi dogal googu neexul fédération bi nga xam ni moo boot association yi nga xam ni ñoo fi nekkal way jëfandiku yi. gis nañ li mu laaj ci xaalis moo moo ëpp li kenn kenn am na keneen koo xam ne moo ko gën a wàccale te loolu ci wàllu marché public dafa ñu jaaxal ak lu mën a xew. Euh, bu ñuy dem ba 31 décembre di jot ñuy dugg mois 2019 consommateur bi du am problème. ci am am ndox ak ñàkk ndox. bu weesoo jafe-jafe yooyu ñu ne mën na koo jural ci waaru joxe ndox mi. ci lu aaju ci njëg li foofu it am nañ fa lu leen fa metti njëg li consommateur bi fay sax dañu waxoon ni mën naa wàññeeku waaye nag dañu jàpp ni bu wàññeekuwul itam ne lii e, e, mbir mii ak la ca xew ak e, li ñuy li ñuy li ñuy lijjanti. diggante fermier bi ak état bi yooyu yëpp dañuy jàpp ni ba mu bëgguñu fii ak ci kanam ñu ñu wax waxu yëkk euh, ndox mu yokk ndox mu yokk moom bëgguñu koo dégg wax dëgg yàlla. imaam Youssoufa Sarr ak ñi mu àndal ñoom it ñi ngi ñaaw ñaawlu li nga xam ni boolewuñ leen ci liggéey bi ñu sosoon. loolu jàpp nañ ni du dëppoowul ak li nga xam ni moom la euh, euh, mbootaayu réew mbootaayu réew yi wax ci mbir moomu dañ képp ku nga xam ni lépp lu nga xam ne ñu ngi koy liggéey ñu ngi lijjanti jëm ci way jëfandikoo yi il faut que bala ñu ciy jël benn décision waxtaan ci ak ñoom jël ci seen xalaat. réforme bii nag tey ñu indi ko ci wàllum ndox mi bi yoon mooy ñaareel bi ñu amal ko fii ci Sénégal gannaaw bi ñu fi amaloon ci atum 1996 wante fi mu toll nii xel yu bëri mi ngi teey bu ñu sukkandikoo ci kuréel yi nga xam ni ñoo boot way jëfandiku yi ñoom ñu ngi woo nguur gi mu xoolaat bu baax contrat bi ana lan moo ko lal. Maïmouna Ndiaye ñu wax ci leneen boo doxantoo ba ca sous-préfecture bu Dakar Plateau fu fee ca Ndakaaru nag table yaa ngi fees dell ak carte électeur li ko waral nag ñoom ñu ne dañuy am ay jafe-jafe ngir gis koo xam ne rek dafa jël si ay kartam ay fan a ngi sax daanaka ñaare nit rek ñoo fa ñëw jël ci seen carte électeur be tax na ñuy sàkku ci ñi nga xam ne ñoom moom carte yee ñu mën ko jël si bu ko defee rek élection yi di ñëw ñu mën a wote Habib Faye amoon fa ab doxantu andi ci ak Modou Diop carte électeur yi ba léegi gisaguñu seeni borom ñu teg leen ci taabalu salle sous préfecture bu Dakar Plateau bi talaata gi yemook juróom benn fan ci weeru novembre ñaari nit donc ñoom ñoo ñëw jël ci seen carte électeur jotaguma ko ma ñëwagul naa jaabante dama ñëw ñu ne ma génnagul ma dellu depuis loolu ñëwuma ñëwaat naa léegi ñu ne ma génnagul. dama ñàkkoon jot nag moo tax ba léegi mun moo fexe ba jël si ko mais macha allah tey jaar naa fekk naa ko fi. am na njëriñ nit ki boo déposé calendrier da nga war a ñëw nga jël ko mais doo ko bàyyi fii gars yi ngi nekk fii saam ko fii aussi c'est pas joli rafetul quoi. lu weesu fukk ak ñetti junni carte ñoom la ñu dajale fii. heure bu ñu wax yow ni tey actuellement euh, jot nañu 3145 cartes. ci ci ci ci voilà ci ci yu bees ci biir loolu joxe nañ ci téeméer ak juróom-ñaar fukk ak benn heure bu ma yoon actuellement dese nañ ci donc 2974 euh, muy ñoor ñaari junni carte ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñeent donc bu ñu tey globalement carte yi nga xamante ne jot nañ ko muy nekk carte yi nga xamante ne dañoo nekkoon ci euh, révision exceptionnelle bi ak carte yi nga xamante ne dañoo nekkoon ci refonte bi muy 13015 cartes ñoo ñu dese tekkaaral gi ci askan wi tax na itam administration bi ne séddale gi mi ngi dem ndànk-ndànk. actuellement nii quand même euh, carte yi quand même ñu ngi dox donc c'est pour vous dire que ne musul am rupture. ci biir séddale carte yi carte yaa ngi fi commission bi ñu mettre en place mi ngi dox du matin au soir chaque fois pour joxe carte yi. yile couloir jafe na nga gis fi nit gu fi jaabante ngir jël si ay carte électeur am gannaaw ba nga xamante ni itam def nañ li di révision exceptionnelle gi ñeel wàllum liste électorale yi ba léegi carte yi gisaguñu seen borom na nañu yaakaar ne ñoom ñi dañuy xaar ba élection yi gën a jege si ngir rek ñu mën a jël ci seen carte yi. Habib Faye ñu dewoon ba ci diwaanu Sédhiou ci dëkk bi ñuy wax Manékounda foofe nag seen école bi daanaka lépp mbaar la woon mënees nañu wax ne fàtt nañ li mel. ndaxte seen ay doom yi dund foofee ca France rawatina ci dëkk boobu de Bordeaux ñoo booloo rek ak seen xarit ngir tabaxal leen juróom-ñetti eh, salle de classe ak li nga xamante ne tamit mooy bibliothèque. loolu yëpp ñu xayma ko ci fanweeri milliards ci suñu koppar fanweeri million ci suñu xaalis ñu gis ne rek dina mën a jàppale gone yi ñu mën a jàng bu baax a baax Bakary Konte ànd ci ak Khalidiane classe yi nekkoon fii ci village bu Manékounda ay sakket la woon maanaam ay abri provisoire Manékounda bokk ci commune bu Jiree ji ay doomam yoo xamante ne ñoom France lañ nekk ñoo tabax juróom ñett de classe benn bibliothèque ak benn bureau pour directeur bi. nous dañu kontaan loolu ci réalisation yi la ndaxte population yi ñoo si jàpp ndaxte seen initiative la loolu moo tax ñu am résultat bi la lu ñu ñaan population bi mooy ñu entretenir bâtiment yi. ndaxte lu innovant la lu confortable la jóge nañu ci abri provisoire yi ñëw ci bâtiment yi loolu lu rafet la. Euh, c'est magnifique pour eux. inspecteur d'académie bu Sédhiou di ne tabax yi bees yi dee tax ba enseignement yi gën a baax. ci programme sectoriel éducation euh, dañu dañuy bàyyi xel li ñuy wax équité maanaam fexe ba méngale anam yi nga xamante ne ndongo yi foofu la ñuy jàngee fii ci Casamance ak feneen fu dul Casamance euh, maanaam Dakar ak feneen. te gis nañ ne euh, euh, pour yemale bu ci yemale boobu noonu euh, ay la yooyu il faut ñu dakkal abri provisoire parce que ñii di jàngee ci ay ay mbaar ñii di jàngee ci ay classe loolu dafa xaw a yéeme ba tax na ñu ngi ministre bi ak éducation nationale dañ farataal genre pexe yi nga xamante ne nit ñi ñu ngi koy fexe pour pour pour comme mbaar du fi amati. Mamadou Lamine Diawara maire de Djiré di rafetlu initiative bi tey. tey dañoo ñëwoon vraiment ànd ak suñu partenaires yi nga xam ne maa nekk euh, association Manécounda Bordeaux nga xam ne depuis ay at ñu ngi yëngatu ci wàllu développement surtout wàllu éducation tey mu ngi nii jot dañ financé euh, benn école xale yi vraiment mu nekk euh, lu rëy si ñun lu rëy si ñun ndaxte état mu ngi def ay jéego xëy na waaye bu ñu amee ay coopérative ay wàllu coopération ñu am ay association ay kuréel yu mel ni Manécounda association Manécounda France secteur pour nag village bu Manékounda mun a développer. ñu wax ci mbiru politique njiital ACT Abdoul mbay mu ngi yoon tey te diwaanu Tëngéej foofe nag jot na fa amal ab doxu ba nemeeku rek tase kay militant ci loolu sax la sukkandiku ngir yëkkati ay kàddu di wax ci jafe-jafe yi ñu ma jàpp ne nguuru Sénégal ñu ngi koy am jamono ji aju ci wàllu koom. mu gis na rek li ko waral nag bari na ay projet yoo xam ne nguuru Sénégal de ko sumb mu bari xaalis bu ci dugg te loole nag mu gis ne rek amalul askan wi wenn njëriñ ñu teewlu ko rek ci micro Ousseynou Thiam. réew mi askan wi sonn na te taux de croissance bi ñuy wax ne àgg na 7,2 pour cent ba ñu mën a ràññi Sénégal ci ci li ñuy wax ñoom Sénégal bokk ci réewu àdduna yi gën a gaaw koom-koom ah loolu de gisuma ko. dañu war a soppi ni ñuy doxalee suñu koom fii ci Sénégal grand projet lañu bëgg a bàyyi la ñu war a bàyyi te loolu wax nañ ko ci suñu programme ndax grand projet li koy indi mooy benn dina ko tiitaroo ñaar li ko mën a indi itam mooy nga leb lu dul jeex bitim réew muy lebu devise nga leb loo xam ne li di nga ko fay ji bitim réew jox ko di ko fayee marché yoo xam ne dénk nga ko entreprise yoo xam ne dañ koy génnee itam te doo doo doo liggéeyloo entreprise sénégalaise loolu yi dañ ci war a génn indi leneen indi leneen mooy lan mooy benn fay daal li nga xam ne lii mën nañu sañ nañu jàpp ne moo yore koomu Sénégal mooy micro entreprise mooy informel fay daal mbéy fay daal artisanat nangu suqali mbéy ak artisanat ba mën ko yóbbu ci li ñuy wax semi manufacture ak manufacture réew boo gis mu am émergence noonu la mujjee doxalee noonu lay dox ñu wax ci mbiru transport syndicat des transporteurs routiers du Sénégal mel ni jamono ji ñoom amuñu wenn kàddu li ko waral nag am ñoo xam ne ay membre ju jóg taxaw rek ne seen euh, secrétaire général bi di Alassane moom nekkatul seen njiit ndaxte mandaam jeex na takk ba tax na ñuy sàkku assemblée générale ñoom ñu ngi woon ca garage euh, Beaux Maraîchers de addu li ñu mel ñu teewlu ci loolee Pape Seydou Dianko ci micro Salif Sow waaw suñu objectif mooy a euh, ubbi nañ fi en tout cas six postes d'enrôlement six postes d'enrôlement yooyu mën nañu dem ba quatre cent ba cinq cent personnes ñu mën a enrôler par jour bu ñu xayma chauffeur yi nga xam ne ñooy fréquenté gare bi actuellement si ay six mille lañ toll waaye du ñoom rek ñoo fiy ñëw pour enrôler yeneen chauffeur professionnel yi nga xam ne ñu ngi ci urbain bi wala ñu ngi si yeneen secteurs yi mënuñ ñëw enrôler mënuñ ñëw enrôler wu fii de ce fait si euh, balaa at bi incha allah dina fekk képp kuy professionnel da nga am sa permis képp kuy particulier di nga am sa permis incha allah ci anam yi nga xam ne moom lañ ko moom lañ ko santaan. jamono ji daal euh, lu ñu mën a xayma lu mat euh, fanweeri junne. permis defar nañ ko ba pare ba jox ko seen borom te yaakaar naa ne ñu ko jot a euh, jot jëlit euh, ay ay ay feedback yu positif lañ ci am te yaakaar na yaakaar naa ne aussi euh, seen mbokku journaliste ñu si bare aussi ñëw nañu enrôlé ñëw nañu fële Lat joor ñu si bare ñëw nañu enrôlé te ñoom it kontaan nañu kon di ñaax rek ñëpp la Sénégal yëg. ci tàggat yaram doxantu ba ca Déni Biram Ndaw foofe nag waa génération foot moom dañoo fësal seen taxawaay atum ren ji ñu ne ñoom li leen tax a jóg mooy jël championnat bi fekk tamit am taxawaay bu mucc ayib ci coupe d'Afrique bi ñuy amal ci loole nag pour ñu mattal ko foofu ñu gën a fësal li nga xamante ne mooy liggéey bi ñu doon def at yi yëpp ci loole nag jot nañu taseeg taskatu xibaar yi ngir àddu ci li ne mel Cheikh Sadibou Diarra teewoon na fa andi ci ak Khadim bokk ci phase de poule bu coupe CAF bi loolu mooy mbébétu génération suuf bu demee Afrique ren ngir mottali yéene bi équipe bu Déni Biram Ndaw yokk na effectif am bi mu yor juróom-ñeenti joueur la jënd. boo amee juróom-ñaari xale yu dem te juróom-ñaari xale yooyu ñu bari ci équipe bi dañu xarañoon am fa place defe naa bu fekkee ne ñi ci suuf amaguñu waaw taxawaay boo xam ne lu ñu xarañ xarañ mën nañu wax ak mag yi def ak max ñi jëflanteeg ñoom da nga naan naa seet ci ñun ni ñu yaakaaree ni ñu gisee footballkat yan xeetu footballkat lañ fi mën a indi pour ñu wutu ñooñu ci place yi te it bañ a fàtte ñi nga xam ne ñu ngi ci suuf di leen tàggat loolu lañu def ren. mais loolu aussi dafa ñuy may fi ñu jëm maanaam football bi nekk jongante bi nekk ci wàllu Afrique ñu mën ci am taxawaay bu baax parce que it booy bokk ci jongante. defe naa aussi da ngay am yéene ak bëgg-bëgg boo xam ne da ngay bëgg a dem sori ñun li ñu taxawal mooy groupe yi nga xam ne moom la ñuy wax poule dañ ci bëgg a dugg. ak seen yéene am taxawaay bu rafet ci Afrique Génération Foot dina si def moyen yi war jàppandi nañ juróom benn fukki million franc CFA yi ñu ci nar a dugal. gagné benn champ euh, gagné championnat bi. gagner coupe pour mun a dellu Afrique régulièrement mënatuñu on ne peut plus se cacher euh, si wax ni que vraiment dañuy jouer ay première wala deuxième ou troisième place léegi li ñu mën a wax mooy que ñun vraiment tey il faut ñu gagner championnat bi wala ñu gagner coupe pour dellu Afrique. jël championnat bu Sénégal tamit bokk na ci seen bébét demaat ci Ligue des champions bu Afrique doon li leen yitteel lool. Cheikh sadi bu cant ak ngërëm nee na la yéen tamit naka noonu ci teewlu beeg safo bi ci kanam tuuti Cheikh Tidiane Diaw dina fi teew tënk leen xibaar yi ci wàllu nasaraan jërë ngeen jëf.